إلى يوم الدين يا أحمد التيجاني يا نور القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب أما ترى ضيم الذي أصاب وأنت الغف لم تزل مجابا بك توصلنا إلى ربنا وبكما لربنا العالي العاجل العاجل بالإغاثة يا من هو كل العلا الوارثة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نو nuyu بكري دانك صح Tijaan si wax benn bés ci kër gëm lu doy waar dafa wax ni di kilifa di borom leer di borom cër ñëw di sukk sama kanam dina léeg-léeg damay xaw sax boobu comme doon waxal al amin ñu Cheikh Tidiane si moo ko wax parce que bu ma ñëwee fii ba ñu jox ma chaise fauteuil bi ma toog ci damay tiit yàlla xam na waaw macha allah ci bi may julli tisbaar la sama téléphone sonné ma jóg xool muy ni war paaka ma ne tey ma dee mu ni ma sëñ bi nee na nga teewal ko ca yëfu si daal am na loo am de ma ne ko ndey am tey la ma ne ko te Umu mooy marraine mu ne ma waaw waaye bu àll bi la ne ko waa kon ñu négocier ko waaw waaye négocier nañ ko nag mhm. ndax dem nañ ci bu nday Cheikh fekk fa sëñ Pape Malick muy dem ñu sànni ci ay kàddu yu cant soog a dellu si bu may sax dama koy def man daal ci conférence koor bi daf may yewal ci conférence Seydi Cheikh fekk maa ngi feebar ma xëy suba war a dem ci docteur bi maa ngi ci docteur bi ba treize heures yàlla xam na ko ci laa fa jógee ñëw defaru julli tisbaar ñëw ci conférence bi bi may ñëwee ma sànni ay kàddu ni Seydi Mouhamadul kon boo demee rek nga waxtaan waaw waaye tey nag yëf yi dafa daanu sama kaw yi ñetti yoon parce que daf ma jox carte d'invitation sëriñ bi yebal bi ci des ñu tudd ko ñu tudde ko Seydi Mouhamadul si jëm waaw te waxoon naa leen daaw ci conférence am bi ni la baatu jamil bi fi mu jóge hmm. gis nga salaatul fatih hmm. allahuma salli ala sayidina muhammadin sept cent soixante trois bi ñu ko multiplier par dix buñ ci wekkee jamil muy salaatul fatih hmm. lu doon ñu ci yokkee itamit muy salaatul faatiha dafa invité di déclaré sëriñ si ñëpp ay ma nga fa mais Jamil ma nga fa moom tamit ngeen déclaré ba pare ñu ngi dem ci salle da la daana salle xaw ma bi banque xaw ma mu dem ci réception Seydi Mouhamadul Moustapha xool moom tam xam ni timis bu ko fi takkee mu fekk ko fi mu ñaan Senghor mu may ko mu retiré dellu kër mais Senghor da doon insister ci bu mu fekk réception alaajteeni Saïd ni ko Senghor bàyyil Moustapha mu dem Moustapha doomu soxna waaw doomu soxna boobu nag man moo ma ñor dafa moo dem doomu soxna la noonu lay xool tabarakallah li sëñ Babacar bind yëpp mokkal na ko li sëñ Xaaji Maalik bind yëpp mokkal na ko ba bind lettre yi ñu daan bind Serigne Babacar ko daan tay waaw te boobu fàttu kenn xamul li mu doonoon lan la waaw lu mel ni li mu daan wax moom fàttu boobu indi dal markaz yi foofu lool maa xam ne lay jóge waaw parce que foofu al markaz yi foofu ñu wal maa ko defee moom Serigne bi moom tamit kenn xamul lu mu doon nam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téeméer ñaari téeméeri tur ak benn la am moom yonent bi mu tolloon ci asmaa Allah asmaa yi naafiya waaye boo jëlee Abdul Aziz ñoo toll si ni Abdul Aziz li yéeme du hasard waaye ñu génnee ni métti nga dem ci salaatul faatihi nga jël Muhammad bi mhm. nga jël Naasiru bi mhm. nga jël xàqo bi mu jox la Abdul Aziz Si mhm. di cinq cent onze allahu akbar waaw ah. loolu moo tax muy le gardien wala tariqati tijaani est-ce que si Malick waaw maa xale yi keroog ndax bu ma bu ma dugg ci tariqa bi parce que bu ma duggee rek sama yaram dafay commencé tànk maa ngi koy wax xale yi keroog ne leen passation de service bi moom suñu Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi ko defee ci rajo Cheikh Ahmed Tidiane hmm. dama leen jaaxal hmm. mais looloo am ñu uhum. paree ñu génn taxaw ci bon toraaw ba bi suñu la Cheikh Pay ci xool nii lu yéeme la moo tax kenn mënu ko woon jullee ku dul moom da fuñ ko fuñ ko dogee du fii waaw dama ñëw ci soxna wu moo génnee àdduna ñëw bari nekk fa bu dee ma ni ma ku ma koy jox ma jullee ko ma ni ko jullee ko ma ne ko boo ko jullee woon rek ba ma demee dama àttala yow sax moom waaw pour wax la lii Xaji Abdou Aziz Dabakh waxoon Sëriñ Babacar Si ni ko yaay nu yem te onkuloo sàkkuloo ku laaw te jàmbatoo ndax ni nit billaahi si yaa bari noon waaye billaahi moo bari ko jàmbatu li muy yem waaw yàlla defal ko ambiance bu ko atte na nag waaw tabarakallahu kenn yabu kuñ yabu ku bëgg dal ci pare xabi xalaat ko bàyyi ko ku bëgg dal ci kër gi xalaat ko bàyyi parce que da nga naan la gardien fa moo tax sagal ñëpp ndax ku añaane sa ndono sa ñaaw moo waral ñu toog fi tey di wax ci place am ndax bu ñu ko añaane woon wala mu añaane ko ali kon loolu du am waaye bëgg na ñëpp mu jox leen seen cër ñëpp la jox seen cër ba mu mën sëkk su ko defee Euh, dama ko waxoon ma ma jaayante ak moom te boobu sëñ Cheikh génnagul àdduna ci journée Cheikh yi ca Ndar dañuy dama daan werante ak moom ne ko d'accord ma sëñ yenente bi am bésam ngeen utal ko pare waaye d' accord mooy itam sëñ Cheikh Cheikh Tijani bésam ngeen utal ko pare waaye bi ñu demee Ndar nag ñu def pare bi ci xewlul Fuuti ma ne ko d' accord naa ci say xewlul Fuuti ma am pare ma ne ko ndax Cheikh dafa bind Jawahirul Maani mu bind Rimaa ni ko Cheikh bind Mashahid mu bind Maqasid ma ne ko teel. keroog moom Cheikh Aymar Fouti ma ne ko bi muy dem mag di seet Seydou Mouhamadul Ali ma ne ko keroog bi mu ñëwee Seydou Mouhamadul Ali dog ko tarbiya ci am lu mu ko doon laaj ci benn sekk ma ne ko Seydou Mouhamadul Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni Cheikh intervenir Cheikh Omar li muy laaj nañ ko ko jox te bëgg ci kenn sonal. ba bi mu xëyee suba ñëw góor gi xool ko daal di rey moom Seydi Mouhamadou Wahabi ni ko waaw mu noo war a wax yaay kan xëy war fëtiwi rey mu ne kon ndàkkam ndàkkal naa moom mu nekk pare mu ne ko Seydi Hadj Malick dama dégg ci Serigne Cheikh Tidiane si mu wax na yéen Sëñ si wax na ko ni yéen si Cheikh Tijaani ak Sidi Hadj Malick mais mu ne ko ndekete ci téere lañuy ñuy ormalante mais bu ñu ko wéetee bu ko Cheikh ne camarade Maodo ne ko camarade ma ne ko bi ci des ma ne ko Serigne Babacar ma ne ko Alaaji Ceerno Dem daf ma jël si aman lax sandooy bi sëñ Babacar Sy moo doon denc soxna Zeynabu Jaañ mu ni ma doomam ndax doon takk soxna nañu dem ñu ndoofeel yi ñoo ànd dem bi ñuy demee moom présenté ko ni ko kii sëtu Serigne Babacar bu ne ko ah nettali ni ma dafa am xaritam boo xam ne dafa am benn problème bu rëy ni ko nañu dem Tiwaawan seetu Serigne Babacar nee na ko bi ñuy demee ñu jaar ci soxnaa fekk soxna soxnaa ni leen xaaral ma seet ko mu dugg ni leen dafa nekkoon ci kurusam ngeen xaar tuuti mu yegg si léeg-léeg gis tuut sëñ Babacar si génn sol tukki dara bu weex mi ngi yor fi mu yor mi ngi téye ñëpp fi mu yemoon ci kurusam léeg-léeg bi ñu toogee ñu nuyanteeg moom mu jàmm santeeg ñoom ñu wax ko sari soxla bi sëriñ Babacar si ne ko incha allah dana faj sëriñ amoon laxsan ni ko si yàlla bu la kenn mën a rekki mu ne ko xanaa xamal ni ku mënul rekki Cheikh Ahmed Tidiane mënoo maa rekki leen kon kooku d'accord naa mu nekk pare ci bésu Sidna Cheikh ay na ko bi ci des nag fii laa yemagul tabarakallahu kon tey Alioune Sall bii bu amee bis bu toll nii soxna si jur ko mu jël pare jox ko Seydou Mouhamadul Moustapha si Jamil lu woon ci ku xam diggante soxna Safiyatu ak Bamba ak ak sëñ Mouhamadul Moustapha si jëmm ndax soxna Sophie bu mosee ñëw Dakar ci kër soxna Umu lay tax sama néeg lañ may génne dox ba fanaan ca perom ya wala ca sàmm tabaarakallah bu daan dem ci sëñ Mouhamadul Moustapha si jëmm sañse bi ñu daan sañse ànd ak soxna Umu ñu ñëw ci moom kenn su ko gis waaw waaye dama daan dem nag moom soxna Sophie awraatu tariqa bi yëpp dana leen jàpp du bàyyi dara sayf yu yaamal afral sabil musabaatul ashir dana ko xisbul baxr yëpp dana ko jàng def waqafa alquraan soog a sañse nag sangu sañse ba ñu doon jàngaale dégg daw yor soccoon nag gi socc nga xam ni kii ci buuru tariqa bi la bokk tariqa bi dafa ay buur waaw da koy wax fan yi ci bi may waxtaan ci benn ngénte ci tiwaaw ma leen di wax ñi mag ñi ndeysaan daara yi ni mu meloon ci tiwaaw xam-xam yoo xam ñuy jàng ñuy jàng soxlaaw sit ñi ngay jàng ñuy jàng wala kaani ñi ngay jàng ñuy jàng daal yi ñu ngay jàng waaw fànn yëpp mantak bayaan yëpp ci daara ji bu ñu paree nag mag ñi ñëw toog commencé nañ ñiy jamant ci chari jamant ci sharia ñu ngiy jamant ci sharia waaw ñu ngi dégloon teg bindi yi ñu war a tari ci diggante soxla doomu toog tabarakallahu macha allah ma ne leen collège boobu ma ne sëñ Babacar si ak collège am Alaaji Mansour ak collège am fale ci beneen côté tabarakallahu ma leen mag ñi àndoon ak sëñ Babacar si mag ñi àndoon ak ñun ñu ci des ñoom ñëpp ku ci nekk sëñ Babacar si du leen sàll ku mu ci oo sëriñ la leen di wooye ma leen sant si waaye ay sëriñ lañ woon sant ñu si mais ay sëriñ lañu woon tabaarakallaahu lii par xalifa kawe def wax moom moo nekkoon sama njaatigi bi ma nekkee Thiès moom alaaji njaa sa ak ndokkel tabaarakallaahu muy lu am solo dafa am benn góor bu nekkoon ci wetu kër suñ Habib ku daan def sëñ Aliou ku bari woon xam-xam boo mosee ñëw ci tariqa bi rek wax ak yow cheikh lay wax ak yow Sidi Hadj Malick lay wax ak yow Sëriñ Babacar Si lay wax ak yow tabarakallah mu nettali ma ne benn bés dafa dem ndànk nee na dégg ne sëriñ xaaj yi ma nga fa ne mu ñëw seet si ko ni ko ñuy waxtaan bay dem niko ko sëriñ xaaji wax ko ñaari baat yu ko jaaxal mu ko ndax daf ko wax ah. ni ko bés bu nekk tef yenu ñëy mu ne ko waaye bés bu nekk këral bot gay waaw mu ko loolu mooy lan ni ko da ngay xëy suba fanaanoo sam sa sa sa sa diine mu ne ko bi nga laata tudd jigéen tepp ko mu ne kon tef yenu na ne ko bi des da fanaanoo sa bor bi nga laata tëdd nee na xaalis teppi ko kon këral bon na ngay de te bii bii bii ñaari yii ñu nekk suñu jamono tey wala yàlla xam na te nag épargne wul kenn de ñuy jaakaar suñu mooy naka la ñuy def ba musulman yi li ñuy ñu mën koo appliquer waaw texte baa ngi nii mais ko lire parce que guddi na guddi na ba pare su ko defee rek tey jii ki ñu tuddee bés bi ku ne xamoon ne ni mu mel ci plan li tax ma ni sëriñ bi maa jëkk jaayante ak moom ca ndar boobu suñu Cheikh génn parce que dama toog waxtu wi taw tëdd ba guddi maa ngi am lu muy liggéey ci ci jawsar ñu ne tëddee ba guddi gént gis Serigne Cheikh Tidiane Sy ñu solal ko jàllaa bi tëral ko di ko julle ma liggéeyaat loola ci ëllëg sa géntaat mu ni jox na njabootam ñu ubbi bàmmeelu Serigne Babacar Sy ma yeewu jaaxle gis mbokk ma waxam ma jël sama téléphone au Serigne Mansour Samb mu ne ko ah am naa lu ma gént bi ñu ko xam mu ne ko sëriñ bi gént naa ñu teral ko di ko julli mu ne ko li ma jaaxal itam ci beneen bés bi deuxième jour bi damay géntaat mu ne jox na digal ay njabootam ñoo bi bàmmeelu Serigne Babacar Sy yàlla def daaw jéeg daawaati jéeg ñu dem ndaw ci journée chef bi ñu paree sëriñ bi ni leen dama bëgg déwén bu ngeen koy defati ngeen dugal sëriñ Babacar Kane yàlla tax daaw ren bi koy def ñu ñëw si ma ko jour bu njëkk bi sëriñ bi rek ñoo fa ci kër gi sa sëriñ bay abdu waroon def conférence bi ma war ko nekk modérateur am naa sàmm lay waral sax xëy na ñàkkul lu ko ci sëriñ bi wax ma bi ñu ñëwee waaye sama xel bi ma laata dem ndar sama xel dal ma ni ndax dama dem ndar soxna mu génn àdduna te ñi njigéen la te dama ragal dem naa ba ni dootuma dem ba ni àq waaye waaye sëriñ bi ni man ma rek may bañ a dem dem rek wallaahi ñu dem bi mu waxtaanee ci jour bu njëkk bi sàmm bi ba pare dafa pare rek mu tàllal ko sama loxo ne ko yeesal ñu ne ma yow da nga war a yeesu yow warutoo yeesu ni ko wax yeesal ma rek waaw ñu ñëw dimanche bi def conférence bi ba mu jeex dafa naa ne sëriñ Bay Kara solal naa ko ci ay parce que dama ko wax ne ko sëriñ Cheikh Tidiane Chérif ma ne ko li ma jaaxal sañ-sañam ma ne ko ndax bi wadifa wàccee ci astaghfirullah al-azim alladi la ilaha illa allah wal hayy al qayyum bi muy wàcc ci waa atubu ilayhi la wàcc ma ne Cheikh dagg wa atubu ilayhi bàyyi fa astaghfirullah al-azim alladi la ilaha illa allah wal hayy al qayyum bi muy tàmm wa atubu ilayhi parce que taalibeem wax nee na ku tuub yombul tu ku tuub ku ni tuub nga tu tuubuloo fen nga te ku fen boo dee si xar mi mu sowee taalibeem ci fen dañu waa tuubu ilay gi mais gis nga lim fa bàyyi moo gën a garaawati bi mu daggoo waa tuubu ilay xam nga lim fa bàyyi dem trois alhamdulilah yi ci alquran ak alhamdulilah rabbil alamin bi ci fatihatul kitab loolu la astaghfirullah al azim alladi laa ilaaha illallaah wal hayyul qayyuum tolloo li ci des nag du ma ko wax. li ci des ma ne ko mu fekk tur yàlla bu ñu bind tëgg ko dugal ci turu Seydina Jibril mu xool tur wi. ñu Seydina Jibril yàlla daf ko daan yónni ci yéen te yónneetu kon ma di dem ak yonent bi dox te Cheikh sama ma def ak yonent bi mi ngi dox waaw mu dugal turam ak Tijaan yi suñu xarit si moo ma jëkk a jàngal tur woowu bu Seydi Hajji Maalik ah. waaw dama ko liggéey alors di ko booleeg salaatu fàttali di ko liggéey ñu xëy suba ni ma ñëwal dem Makka ñëwal dem fàcceel Cheikh Ahmad Tijaan Cheikh man ko sañ-sañ boobu lan la ah su ko defee moom laa wax sëriñ bi ma ne ko dama yëree machaak yi ma ne ko ci laay soog a xam kan mooy Cheikh Ahmad Tijaan ma ne ko waaye itam ci laa xam kan mooy Sëriñ Babacar Si ndax diwaan mu def ci Seydina Cheikh waaw parce que Cheikh digal intermédiaire ak Sidi Ali Harazim la dugal digganteem ak yonent ak Cheikh Chama Tijaan di jël Sidi Ali Harazim di ko yónni ci yonent bi nem na ko soo demee nga ne bi mooy nangam soo demee ko mooy nangam soo demee ko mooy nangam dafa doy waar moo tax bi nga xamee ni mënul ci xadara ba mu mën a jël Seydi Aliou Harazim mu représenté ko waaw te loolu kenn sañu ko ah su ko defee tariqa bi loolu tariqa bi ñun nag liñ ci am na ci kenn amul ndax Seydi Chamat Tijaan yi doomam doon ko Seydi Mouhamadul Kabir Seydi Mor Habib doon nañu ko Seydi Aliou Tamasini moo ko doon ñoo ko doon waaye ci Jeanne Mbaada ci booyatul borom boobu yow wax na ni ñaari doomu sidna Cheikh yi yàllaa leen def jëmbu indi leen ci moom ci lu lu ñu liggéey ci course ku ko nekk boo yëgee ko asamaan fu wata Seydi Aliou Se naka lañ ko waxati déedéet si daal luñ tabaas yi ne bokkul ci tariqa la wax ni góor gi wax ni moom visité na fu yonent bi visité wul bi nga demee Kawasawa si Abu Yazid Yazid mu waxee ak làbbe yi ba yeggal ca seen jalab ba ci lañu ko bu Abu Yazid waaye tuddul Abu Yazid Abu Yazid ismuhu Tayfur huwa ibnu Isa amuhu mashhur Tayfur la tudd moo tax boo demee ci téere sharia yi doo ko ci fekk mais téere bayaan yi ñoo indi woon turam waaw moom a wax ne bi mu nekkee ci kaw asamaan visité na fu seen fu yonent bi visité wu waaye ñi ko tontu dañ ko wax ni ko yow visite privée visite touriste nga demoon yonent bi visite privée nga demoon touriste fu ko neex dem dana dem Rebeuss dana dem Sandaga fu ko neex dem waaye nag bu fekkee ni nag moom visite officielle la dañuy dox rek dañuy les grandes affaires lañ leen di jaare ci yonent bi les grandes artères lañ ko jaare waaw su ko defee tabarakallahu loolu la moo fi nekk mu wax ni moom Seydina Cheikh ngeen jàpp ci salaatul faatiha waaw ndax mooy lépp nag الفاتح لما أغلق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اهدنا الصراط المستقيم الفاتح لما أغلق ورزق ربك خير مما يجمعون وعيفا fa la ñu def nag ñëpp dañuy def allahu muhammad jibril mikaayil كالفاتح لما علق والخاتم لما سبق ورحمة ربك خير مما يجمعون نولا طلعون ناصر الحق بالحق أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بكاف عبدا أليس الله بأحكم الحاكمين مطلق أليس السم الحكم واصل ومقدارهم عظيم موتى الله والصادقون الصادقون أولئك هم القاء الصادقون الصادقون أولئك المقربون نجل حق قدره دفتر 313 يلي تبع شيخ محمد ومقدار العظيم يدفع خلفاء دفتر 313 بكي محمد فاتح خاتم ناصر هادي محمد الفاتح الخاتم الناصر هادي بيدي 1953 بيدي 2046 يقول لك من 1999 دي 31 لطيف واي باري قلت فمن يوجد القرآن وينقلب إلى أهله مسرورا ثم السبيل يسره ولسوف يعطيك ربك فترضى لولا تظن من يوم في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات كرسيه ولا يعد يقول ما هو العلي العظيم وتولى أخرى من الساكة ñu yokk ci benn muy ñeenti junni ñeenti junni waaw tolloog wadaana ak israaka alladi anqada dahraaka wa rafana laka dikraaka tabarakallah su ko defee li ci des mooy bismillahi rahmani rahim yëpp لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض mooy ci duggul. waaye man non xoolal nekk benn conférence waaw waaw waaw. conférence ñoom ñëpp maa ngi ci conférence bi maa ngi ci bi. 4500 maa woo ci kanam. ñu jël xuruufu basmala dugal ko 1527 amul lu ma tolloo allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima awlaka walxaatimi lima sabaq nasir ilxaq bilxaq loolu nga tolloo loolu nag boo jëlee allahuma aatini min fidatin qabaruha min yaara quatre fois moo tolloog loolu genn wàllu salaatul fatix تاخذ الشاور لكونجينيوم صلاة الحج إن حزب الصيف وصلاة الحج يغنيان يعني عن جميع أفكار وأنا لم يلم اللهم صل على سيدنا محمد برك بوكو كلي نتي بلي كو ترديس يوكوتي جميل ni salaat waaw te waxuma yëpp de la ca des kenn xamul ni mu toll du sañu ma su ko defee tabarakallahu mi ngi bëgg a guddi te doon indi kàddu kilifa rek loolu la waxoon ñoo boo ñu nga waxtaan ak ñoom ci tariqa bi di nuyu nag soo ko nuyu suñu soxna yi fi toog